salut les amis ziar naa leen bu baaxa baax daleen ak jàmm ci seen podcast wolof teg bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie yi maanaam xarala yu bees ci kàllaama wolof. alors comme ni ma ko waxee tey nag épisode bu spécial parce que dafa am lu spécial loo xamante ni moom moo xew maanaam octobre cyber 2022 nekk benn événement boo xamante ni Gérard Dacosta ñu gën ko xam ci turu Root SN moom moo ko organisé ànd ci ak équipe am yëpp. alors ci biir weeru octobre bi yëpp nag dañuy organiser ay daje euh, yu ama am solo ci internet bi euh, mais aussi ci ay bërëb yoo xamante ni xam naa dinañ ko découvrir après ci biir Dakar yi nii alors loolu yëpp nag pour artu population bi ñaax leen ci wàllum karange ci biir internet donc ci événement boobu nag euh, semaine bu jot dina am ay activités yu bëri yoo xamante ni dinañ ko organiser alors fii nag ci podcast Wolof Tech aljuma bu jot dañuy tënk. lépp li nga xamante ni jotoon na xew ci biir semaine bi annoncé waale aussi li nga xamante ni moo war a ñëw ci euh, ci weekend bi alors pour def liggéey boobu nag dañu si ànd ak euh, ki nga xamante ni moom moo tudd Mame Lena sàmb bokk ci équipe Route SN bi euh, Mame Lena ziar nañ la bu baax a baax dalal ak jàmm ci podcast Wolof Tech. benn ziar Ibrahima. Mm-hmm. ñu ngi leen di nuyu. man maa ngi tudd Mame Lena Samb coordonnatrice de l'événement Octobre Sud Bayreuth SN dañ fi ñëwoon tey pour defar leen résumé de notre événement mhm. yoo xamante ne lundi ba jeudi mhm. ñuy def ay webinaire mhm. après les samedis, aura des événements et les dimanches aussi. Ok, Machallah. Merci Ibrahim. Machallah, c'est mm -hmm. cool, euh, c'est parfait, euh, je pense que dinañ ko dinañ ko faral di dégg inshallah chaque vendredi euh, dinañ ànd ak moom def résumé maanaam tënk euh, li nga xamante ni moom moo jot a xew ci euh, semaine bi yëpp. alors maam nee na seen solo naal trop nag ci préparation épisode bi à chaque fois ma lay envoyé message jox ma lii jox ma lii est-ce am nga lii <laughs> mais franchement. Euh, merci beaucoup bu baax a baax ci sa disponibilité alors ñu dem ci suñu épisode tey bi euh, nga xamante ni dañu tënk lépp li nga xamante ni moo jëm ci semaine bi ñu génn euh, ci octobre cyber 2022 n'est-ce pas oui oui alors Léna avant sax ñu tàmbali nag dama am benn surprise bu ndaw boo xamante ni bëgg naa ko indi ñu déglu ko ensemble euh, atia xaaral ñu déglu rapidement surprise. d'accord. salaamaaleykum maa leen di nuyu ku nekk seen tour ak seen sant di leen jaajëfee man sama tour Gérard Joseph Francisco Dacosta la donc man bokk naa si ñuy organiser Octobre Cyber Bayrou SN mais balaa may commencer Octobre Cyber Bayrou SN damay ñi ko wax si concept route SN concept route dafa jóge ci benn surnom bu doon utiliser pour woowee benn jeune passionné à savoir man bu doon nekk en ligne di jéem a ne nit ñi ñu moytu ci danger yoo xamante ni réseaux sociaux yi ak yeneen utilisation internet mën na la lor wala mën na leen lor donc moo tax moom bu mu demee ba avancé maanaam man ba ma comprendre que man kese mënuma def sensibilisation de haute valeur si la booloo parce que booloo mooy doole ànd ak ñoo xamante ni dinañ ma dimbale si sensibilisation boobu mooy may def donc si la ñu créer concept route SN et concept route SN yomb na adhérer rien que rek yow bëgg nga changé sa réew bugg nga di conscientiser nit ñi si danger yi rek bokk nga si route SN et donc route SN man la mais route SN yéen la loolu mooy suñu cri de guerre et ñun ñëpp benn la et comme ni ñuy waxee rek mbooloo mooy doole et si biir mois d' octobre chaque fois dañuy yokk liggéey boobu noonu ñu am bu ñuy def en ligne parce que mois octobre mois cybersécurité la donc dañuy yokk liggéey boobu ñuy def en ligne pour mun a jox nit ñi euh, information yu baax yi ak bonne action yoo xamante ne war nañ mën di ko def en ligne donc loolu mooy octobre cyber Bayreuth SN et chaque mois d' de chaque année dañ koy def pour gën a yokk yokk euh, liggéey bii ni ñuy def mais nag liggéey bi dañ koy def chaque année mois début janvier ba fin décembre bu chaque année liggéey bi dañ koy def pour mun a vraiment ne nit ñi ñu moytu parce que gis nañ ko dérive yi ci réseaux sociaux yi bëri na trop et ñun mi en tant que citoyen mun ñu taxaw di xool loolu. alors c'était Gérard Dacosta moom moo euh, def comme c'est c'est sûr que amul jot euh, donc jot nañ ko par WhatsApp mu defal ñu benn vocal envoyé ñu ko donc euh, ñu ngi remercier bu baax Gérard Dacosta n'est-ce pas Léna. oui oui ah euh, jot na leen expliquer li concept route SN voilà voilà alors ça va un faciliter la tâche ñun dañuy dem directement dugg ci li nga xamante ni euh, moo ñu fi indi tey maanaam résumé wu journée bi parce que gis naa ne am na ay affaire yu bëri yoo xamante ni xew na ci semaine bi tu vois euh, gis naa affiche yi et tout y de choses yu xew et je pense que yoon la ñu partagé ko ak communauté bi yëpp comme gars yi xam lan moo xew mais demaat aussi déglu ko. mais aussi préparer semaine bi nga xamante ni euh, moom mooy ñëw nest pas alors Léna d'accord daje bi nga xamante ni moo njëkk ci événement bi àndoon ngeen ci ak euh, je pense Bentalab Sow ak Gilay Tine euh, wax ci arnaque yi nga xamante ni moom moo am ci internet bi ak naka la ñu war a naka la ñu mën a xàmmee li nekk dëgg ak li nga xamante ni nekkul dëgg maanaam ay nax la alors lu tax ngeen choisir ngeen choisir thème boobu noonu ci njëlbeenu événement bi ak lan moo nekkoon euh, point yi nga xamante ni moo gën am solo yi nga xamante ni seen invité yi waxoon nañ ci. jërëjëf Ibrahima suñu thème 1 bi mu ngi doon wax si ànd ak si les sociaux mm-hmm. fu ñu ne jamono jii nit yi dañuy ñu si bëri dañuy subir ay injustice si réseaux sociaux yi dañ leen di def ay arnaque di leen malmené sax ñu. Euh, defal leen ay affaire ne leen su ngeen fayul nu su ngeen fayul lii ñu publier et tout voilà te ñu bëri ñu leen di nax aussi di pirater seen compte di sàcc seen xaalis di leen nax si réseaux sociaux nax nax nax yu nekk si réseaux sociaux dafa bëri et njuuj njaaj yi tamit dafa bëri torop mm-hmm. ba tax na euh, dañu porté woon ne suñu premier thème moom si loolu lay wax comme on parle de la cybersécurité foog ñu wax si arnaque Euh, méthode yu ANACIM di utiliser ak ñu wax tamit yan solution la ñuy adopter pour mën a xàmmee le vrai du faux voilà c'était c'était ça euh, jot nañ si wax deux points yoo xamante ne ay points yu ay grandes lignes mais man damay jël deux points rek deux points majeurs yi expliquer leen ko. macha allah wax nañ si si ingénierie sociale. Mhm. voilà ingénierie sociale mooy le fait que nit ki di jël identité beneen nit ki. di ko utiliser ci les réseaux sociaux afin de retirer des données c'est-à-dire maanaam day jël profil nit ki contacter la euh, pour mun a am ci ay information personnelle wala sax des fois mu lay laaj ay xaalis et tout loolu mooy ingénieur social léegi naka ngay def yow nit ki pour xam kii compte euh, bu baax bi la wala du bu baax bi un faux un faux compte compte bu bon bi moom du bëri interaction interaction yi day faible te en plus compte bu faux bi du am certification bu bula bi bi wane ni bi mooy compte officiel nit ki or que vrai compte bi day am certification te en plus day bëri ay interaction et aussi dans les réseaux sociaux faut faut euh, en avant l'intelligence maanaam da ngay jiital sa xel si lu ngay dem mm-hmm. euh, euh, nit ki yow benn messi mënul ñëw di la message di la di la laajte ay xaalis wala mu lay message pour di jël ay données personnelles donc c'est l'intelligence euh, qu'il faut mettre en avance maanaam da ngay jël sa xel jiital ko bu jël sa émotion rek jiital ko que euh, joueur bi contacté na ma rek c'est lui mm-hmm. donc lépp lu mu soxla rek dama ma koy wax voilà c'était ça. macha allah voilà mhm. premier webinaire bi si loolu la woon mhm. avec Bentalib. macha mhm. allah. il avait bien expliqué il avait donné beaucoup de points mais comme ça dañuy résumer daal ñaari points majeurs yi laa jël. bien sûr et mu gën a important sax même si parce que ça englobe tout. macha allah macha allah et je vous dis ah wax yéen ñëpp ah, ci description podcast bi. dinañ ci def lien bi nga xamante ni moo leen di permettre ngeen mun a euh, déglu ji wala ngeen seetaanaat épisode bi su fekkee ne disponible mais loolu dinañ ci wax après ci après dinañ ci wax ak euh, ak leena ci suuf après incha allah d'accord mais li ma wax daal mooy bàyyi leen compte boo leen gis foog ne euh, nit ki ngeen ko foog moom la il faut que jiital seen xel comme ni ko leena waxee tu vois il faut que nit ñi dañuy utiliser des fois ay ay dañuy mbubboo beneen nit ñëw présenté wu ci réseau sociaux yi ne la man la diw alors que du ñoom mun nañ mbubboowu sax ne la mën la sa xarit diw laaj la ay information yow nga jox leen ko ñoom ñu dem utiliser ko ci yenn affaire yoo xamante ni du la arrangé alors képp ku leen mën nga xamante ni gis ngeen ko ci internet bi mu mu mu mu interpeller leen mu envoyer message te mu nekk mu jël profil wala mu jël euh, mbubb ku ngeen xam jël sa téléphone nga woo ko tu vois balaa ngay def benn action ne ko yow yaama ma contacté ci Facebook wala yaa ma contacté nangam tu vois am la leer quoi tu vois moo tax da nga war a jiital sa xel bul wóolu kenn nee naa internet mbedd la. tey boo génnoon ci mbedd mi benn nit interpellé na la ne man mën la diw wala di la wax yenn affaire yi dana doo ko faale da xeex ak moom tu vois bu fekkee comme man nga mel <laughs> tu vois alors donc du coup il faut faire beaucoup attention bi n'est-ce pas oui c'est ça alors seen deuxième euh, journée bi am na euh, découvrir nañu beneen webinaire bu gën am solo bu ama am solo aussi ci naka la ñu mën a aaree suñu bopp Euh, di jëfand ci ñi nga xamante ñoo jëfandikoo Windows mais man bi ma gisee thème bi la première question bi ma posé mooy li ma njëkk euh, laaj sama bopp mooy pourquoi Windows déjà lan moo tax ngeen wax Windows pourquoi pas Linux pourquoi pas Mac <laughs> tu vois mais lan moo tax ngeen wax Windows bëggoon naa aussi xam seen invité yi moo mm-hmm. euh, Mamadou Lamine Bara Diagne ak Modou Mar yan mbir la ñu gën a fësal ci waxtaan boobu nga xamante ni defoon nañ ko mm-hmm. déjà xam nga Sénégal suñ ko waxee. Euh, am na ñu jàng mais am na ñu jàngul aussi. ok même ñu jàng yi tamit euh, du ñëpp ñoo nekk informaticien. et ñu fi gën a bëri système d'exploitation bu ñu comprendre bu gën a facile à utiliser c'est Windows. ok c'est pour cela ñu ne euh, comme suñu cible yi ñu si gën a bëri duñu ay informaticiens duñu mun protéger seen bopp. du ñu jàng et tout pourquoi pas ñu wax si Windows expliquer leen comment se comporter là mu nu ñuy def bu protéger seen bopp nu ñuy def ba am yenn bagage bu mën a protéger wu daal moo tax ñu jël suñu thème bi protéger si Windows léegi euh, monsieur monsieur Lamine de passage ñu ngi koy nuyu jot na def euh, euh, kii intervention bu bu bu neex bu jaar yoon expliqué nañu lu clair lu lu tegu si yoon euh, ñun ñëpp comprendre nañ ñëpp képp ku fa nekkoon informaticien ak ku fa nekkoon informaticien comprendre nga li mu bëggoon wax le message a été bien véhiculé. Mm-hmm. voilà okay. euh, il nous a parlé de l'authentification à double facteur maanaam euh, di protéger sa compte euh, di protéger sa compte ñaari yoon maanaam nga ut sa email sa mot de passe. mais n'empêche que dès nga connecté wu si loolu rek dañ la yónnee message sa portable wax na si loolu mais duñ si xuus parce que suñu troisième thème bi si loolu lay wax exactement mais mhm. euh, expliqué nañu aussi euh, pour Windows pour sa protéger il faut des antivirus maanaam da ngay ut say antivirus nga def ko sa sa sa sa ordinateur mu lay permettre euh, yenn virus du la mun du la mun di di kii duñ la mun di attaqué te des fois yenn virus dina la mun muccal si yenn virus yi maanaam antivirus bi moom des fois sa machine day am ay attaque ba tax na sa système bi day jékki-jékki di tëpp wala ngay jékki-jékki sa données yi di supprimer wu antivirus mooy permettre yow euh, loolu noonu yëpp du la du la du la dal voilà wax nañu tamit si gestionnaire des mots de passe c'est-à-dire nit ki sooy connecté wu dañuy ut mot de passe boo xamante ne c'est assez fort mm-hmm. boo xamante ne mm-hmm. pirate bi du ah, du du ñëpp ñooy mën di accès si sa compte. moo tax dafay dafa indi benn outil mooy gestionnaire de mot de passe bu ngi bi permettre nit ki mu am ay mot de passe fort yoo xamante ne. Mhm. yooyu utiliser. Mhm. ba duñu gaaw di pirater ay compte am ak yooyu noonu. lii daal lañ jotoon wax si suñu webinaire de du semaine. Mhm. et voilà. macha allah c'était ça. c'est c'est important et man li ma ci gën a jàpp mooy mot de passe yi tu vois parce que mot de passe yi des fois da da da ngay da ngay créer créer créer ba dootoo xamante sax quoi te à à à mhm. fin euh, da ngay créer mot de passe yoo xamante ni mun nga ko sax fàtte. parce que tey peut être donc boo amee benn gestionnaire de mot de passe ak yu demee noonu bu lay permettre aussi nga mën a am ay mot de passe yu am doole euh, baax na ci moo gën ngay ne de buñ ne mot de passe nga ne papa maman mot de passe nga def sa date date anniversaire tu vois il faut pas aussi les de prendre jël say tour wala say coordonnées personne di ko def mot de passe parce que facilement uh-huh. hackers yi dinañ la attaquer attaquer ça c'est Ah, alors dem leen après ngeen déglu euh, webinaire boobu noonu ngeen seetaan webinaire boobu noonu avec euh, euh, Mamadou Lamine Bara Diagne ak Modou waaw Lamine Diagne ak Modou Mar mhm. ah, ñoom defoon nañ webinaire boobu noonu expliqué nañ ci lu bëri bëri bëri bëri et après ci avant fin épisode bi dañ leen wax fan ngeen mën a dem pour mën a déglu webinaire yooyu yëpp mun cee jëfandi pour mun ko jëriñoo bu baax a baax n'est-ce pas alors Léna Léna j'espère que sonn na ko ah j'espère que sonn ko non non pas encore. am nga café. <laughs> waaw waaw dégg naa bu non mais am nga café à côté. amoo café. <laughs> non je suis pas trop fan café. ah ataaya ngay naan wala bisaab. <laughs> waaw waaw euh, Lipton wala café ñëw rek yooyu livreur baa ngi ñëw livreur baa ngi ñëw indil la ko non wolof teg noonu lañu mel dañoo baax livreur baa ngi ñëw indil la ko. ak may xaar. alors Léna euh, ci troisième journée bi maanaam je pense que c'était mercredi bi passé. Euh, dalal ngeen aussi ku ñu wax euh, José Maria euh, Bintuga mbaa Hélène man na xaw ma li mu ko waxee noonu la wala du noonu mais maa ngi jéggalu José bu baax a baax a baax a baax tu vois <laughs> mu àndoon na aussi ak Fanar Bandia ñu waxtaan ak population bi ci beneen thème maanaam authentification à double facteur waxoon nga ko léegi nii alors ndax nga ñu mën a expliquer euh, rapidement déjà authentification à double facteur euh, mooy lan ak mais aussi euh, lan la José wax ci biir webinaire bu noonu ci wàllum authentification à double facteur parce que je pense que loolu war na intéresser bu baax auditeurs yi. Mhm. voilà déjà. Pour toi, la différence entre authentification à double facteur mm. et vérification à deux étapes. Okay. Techniquement, c'est pas la même chose. maanaam si authentification à deux facteurs bi dañuy jëfandikoo ñaari facteur yu wute maanaam ñaari mbir mooy ñëw dañuy yor sa da ngay yor sa mot de passe ak beneen jumtuwaay comme sa téléphone ou sa empreinte digitale mm-hmm. maanaam euh, soo demee di di di fay sa fay sa facture euh, wala di di kii di envoyer xaalis déjà da ngay yónnee xaalis sa portable. mais après di la yónnee benn mot de passe boo xamante yow nu mu ngi dugal pour mën a pouvoir envoyer xaalis bi et wala nga def sa empreinte si si kii bi. Mhm. si guichet bi pour mën a mhm. envoyer. wante wante double authentification moom benn facteur la ñuy am. mën naa nekk mot de passe ou leneen euh, mot de passe empreinte digitale ou leneen mais ba pare day am liste boo xamante ne liste laaj boo xamante ne questionnaire lay doon maanaam. ok bii mun tax. Mhm. Euh, bi mun tax yow nga aar sa bopp. voilà euh, comment ça fonctionne euh, l'authentification à double facteur nan nan lay demee pour connecter wu si benn sit internet maanaam pour connecter wu si benn site internet bu banque. soo xasee bu dugal sa tour wala sa mot de passe wala sa sa téléphone maanaam sa identifiant soo ko xasee bu dugal ak sa mot de passe mm-hmm. balaa ñu lay jox accès si sa page bi yow sa page en tant que sa compte bi dañ lay yónnee benn code de quatre chiffres boo xamante ni moom ngay dugal sa téléphone léegi soo ko dugalee sa téléphone bu banque bi confirmé que ni yow c'est bien toi yow yaa nekk si site bi di connecté wu ñu génne la sa page nag sa page autant sa sa page profil banque bi yoo mën def sa transaction hmm. importance ban importance la am euh, authentification à double facteur bi moom dina la mën a gën a aar ba koo xamante ne euh, ba koo xamante ne dem na di bëgg connecté wu si site bi du mën a tour def ay transaction si sa tour yow di nga ko yëg di nga xam nu ngay def pour signaler banque bi ne carrément mhm. kii c'était pas moi en fait en gros lii la euh, José Maria doon doon doon wax jour boobu ci authentification double facteur dans les réseaux sociaux moom ak suñu technicien boobu noonu mhm. chargé programme bi technicien Fanal Badiane c'était en gros hyper intéressant li nga wax nii et euh, damay raconter benn anecdote bu ndaw rek ci waa xam naa ki me concerne bu ma déggee dina xam <laughs> alors benn benn jour mos naa toog di bëgg jënd benn affaire benn def benn abonnement bu ndaw ci internet non du abonnement sax mais dama am lu a jënd tu vois mais affaire bi c'était vraiment rien quoi tu vois ay quelques euros la woon rek quoi mais ma jël sama carte bancaire mag.

alo xanaa xanaa yaay utiliser sama carte bi. <laughs> voilà c'est ça alors donc du coup képp ku mën a utiliser sa sa sa carte wala genre bi ah, déjà moom day jot ci téléphone benn message bu koy wax nekko ko koy jox code bi ne am na ko utiliser sa carte bi voilà dugalal ko tu vois. alors donc c'est hyper important donc authentification yuy demee noonu dafay gën a indi aussi sécurité et je pense que euh, auditeurs yi bëgg nañ découvrir davantage li nga xamante ni moom la ñu expliquer ci mhm. euh, session webinaire boobu et je pense que ñëpp dinañ ci dem d'accord alors Léna vraiment vraiment chapeau à vous parce que euh, gis naa ni thème yi ngeen proposé et maa ngi remercier de passage bu baax aussi Gérard Dacosta ak équipe bi yëpp tu vois parce que thème yi ngeen indi nii ay thèmes yu am solo la tu vois euh, ci beneen thème bi nga xamante ni ci la ñu waaj a dugg nii nag euh, mu nekkoon thème bi nga xamante ni def ngeen ko je pense jeudi te te te je pense que am na solo ci jamono ju nekk nii trop sax mu nekk mhm, mhm. irréputation ak vie e-réputation mhm. maanaam electric reputation tu vois ak euh, électronique electronic reputation ak vie réelle maanaam dëgg-dëgg gi tu li ngay dund dëgg alors lan moo tax ngeen tànn thème boobu noonu euh, ak seen invité bi euh, ak na seen invité bi naka la aborder sujet boobu noonu ci webinaire bi ci keroog jeudi. merci beaucoup Ibrahima si laaj bi mm. xam nga fu mu toll nii nit yi dañuy utiliser réseaux sociaux yi rek. mais xamuñu réseaux sociaux yi nu mu mënee defar sa image noonu la ko mënee yàqee. Mm-hmm. et ñoom euh, dañuy dem des fois duñu différencier duñu duñu dem différencier seen fi bu ñuy dund réellement. Mm-hmm. ak lu ñu war a dund si réseaux sociaux dañuy confonder affaire yi dañuy confondre mbir yi bi day jaxasoo si seen i xel duñu xam lii laa war a comporté woo fii ak lii laa war a comporté woo fii des fois dem sax ba nit ki di du di. di dem bay dund double vie mhm. di wane ident di wane identité di wane identité boo xamante ne du moom mhm. wala personnage boo xamante ne du moom mais loolu dafa am facteur bu muy joué li nga li ngay wane noonu mun na dem soit mu defar bu baax mhm. mun na yàq sa image parce que c'est à c'est à c'est à c'est un couteau à double tranchant mun na la defar comme mun na la yàq léegi nag euh, suñu suñu intervenant Abra Abraham euh, Sadio moom dafa ñëw di wax naka la nit ki war a comporter sur le net pour garder un bon profil et naka la war a différencier sa vraie vie euh, de sa vie professionnelle et si loolu lañ wax. Mhm. et wax nañu des mesures à prendre et bon comportement à adopter aussi. si loolu lañ doon wax. macha allah macha allah loolu moom je pense que ñëpp ko war a dañ déglu quoi tu vois et parce que c'est hyper important tu des fois damay faral di wax euh, ay nit ma ne leen su ma leen gisee ñuy def loolu ba leen yéen damay am impression que ne euh, seen moi réel bi seen moi réel bi c'est-à-dire seen jëmm bopp reyal bi seen melokaanu bopp dëgg-dëgg gi bu réel bi dafa mel ni. gënalu leen moom ngeen gën a ñàkkal fayda que seen moi virtuel bi maanaam seen euh, seen représentation virtuelle bi nekk ci internet bi da ngay gis sax booy photo wu tey booy photo wu da ngay jël précaution defar photo bi ba mu rafet voilà def ci filtre xanaa parfum rek nga du def te parce que parfum moom xanaa du génn ci photo bi quoi tu vois mais lépp di nga ko def d'accord léegi boo paree Eh, eh, yow boo waree génn sax yow tey jii nii tey war a génn ci mbedd mi wala du la jaral sax nga def yenn affaire yu effort yu bëri quoi donc dafay mel ni comme si yow ah, sa mois bi nekk ci internet bi moom nga gën a jox cër que sa mois réel bi nga xamante ni moom nga nekk sa personnalité je pense que loolu problème la boo xamante ni tey war nañ ko régler waat ci suñu jeunesse bi et je pense que seen invité bi ah, waxtaan na ci bu baax a baax ci webinaire boobu noonu je pense que gaa yi war nañ ko découvrir pour xam ah, lan moo nekk ci biir j'espère n'est-ce alors voilà parce que webinaire boobu sax. Mhm. Euh, webinaire boobu sax c'était très intéressant dem parce que ñu bëri intervenir nañ di laajte ay questions parce que c'est important. réseaux sociaux mën nga ko utiliser pour booster sa liggéey. Mhm. boost euh, utiliser ko pour pour te faire professionnellement mais pas pour euh, mener une vie boo xamante ne ko et ça ko et tout voilà c'était en échangé na si bu baax ak internet yi et j'espère que message bi passé na bu bu baax lépp jot nañ si et comprendre nañ aussi. Mm-hmm. non dina gën a dina gën a sax parce que dina am ñeneen ñu ko dégluwaat incha allah te c'est sûr que buñ ci jógee nii. Euh, dina am na ñu bëri ñu ko ñu intéressé ñu dégluwaat ko. alors Léna euh, lan léegi nag attends tey le vendredi et je pense que am na ay activités yu war a am suba ak yu demee noonu mais lan la ñu mën a xaar ci week-end bi encore ci octobre cyber 2022 bi pour semaine bi. d'accord pour week-end bi hmm. di am aussi benn webinaire présenté par euh, monsieur Tougoune Sow hmm. voilà moom day ñëwaat ci ingénierie sociale wax wax ci gën ko yaatal gën a expliquer euh, fee yu ci am euh, gën a éclaircir moom ci loolu lay wax hmm. gën a élargir sujet bi quoi parce que dafa ne woon wax ci ingénierie sociale comme étant des méthodes yoo xamante ne arnaqueurs yi moom la ñuy utiliser mais moom day ñëw wax ci ingénierie sociale en tan que tel. ok wax naka naka la gars di def et tout. Mhm. moom dina ci gën a yaatal incha allah. le samedi donc buñ ci spoiler lu bëri. jarul pour le dimanche. Ah, dimanche aussi am na ok. Euh, oui. Uh-huh. pour le dimanche on fera un replay de tous les webinaires qui se se sont pas qui s'étaient de tous les webinaires yoo xamante ne jàlloon na si semaine bi yëpp du lundi au jeudi dans tous nos plateformes de communication ah, cool cool kon yi dimanche nga leen jox rendez-vous fekk ñëpp di dallu bu lekkee ceeb ba ba seen biir fees ah, naan seen ataaya toog déglu euh, mm-hmm. déglu déglu mm-hmm. déglu émission yi jàlloon yëpp quoi n'est-ce pas voilà oh, macha allah ça c' cool c' parfait c' top et je pense que répondre na sax beneen laaj bi ma la bëgg na laaj maanaam fan la auditeurs yi mën a seet mais en fait li ma bëggoon a xam aussi mooy bu fekkee. non des na des na pour auditeurs yi pour ñu mën a. voilà voilà pour ñu mën a suivre euh, affaire bi ko mën a. seet voilà. Mhm. Mhm. Voilà, on a notre site internet okay. a développé avec nos développeurs. OK. Euh, euh, vous pouvez nous suivre sur le www.octobercyber. OK. Tiré du 8 bayrou.sn.com tout en minuscule. ok dañuy envoyé lien bi sax après ñu def ko ci note épisode bi a nga xamante ni dañ cay cliquer directement dem mhm. ak seen réseaux sociaux on est aussi sur Instagram. le kii. Mhm. Mhm. sur le nom de Route SN. sur Facebook aussi sur le nom de Route SN. sur LinkedIn et Twitter aussi sur la page de Gérard Dacosta. yéen yéen a ngi fépp de yéen a ngi fépp. waa ñu ngi fépp àndu <laughs> mais après damay jël euh, seen information yëpp yëpp ma def ko ci euh, notu podcast bi nga xamante ni képp kuy déglu émission bi su koy déglu en même temps su fekkee ne sax bu ko neexee sax mun na dagg émission bi dem dem seetaani gaaw affaire bi door ñëwaat tu vois alors donc du coup c'est hyper important après ñu ko ci biir n'est-ce Mm-hmm. allez merci beaucoup euh, franchement maa ngi lay remercier bu baax a baax a baax euh, maam Lena Samb et je pense que di ngeen ko faral di dégg bu baax a baax incha allah ci podcast bi chaque vendredi euh, dina ñëw ànd ak ñun defal ñu résumé Euh, li nga xamante ni moom moo xew ci octobre euh, cyber 2022 bi nga xamante ni moom la euh, Gérard Dacosta organise ak équipe am yëpp ñu doon ñu leen di delloowaat njukkal bu baax a baax ci thème yu am solo yi nga xamante ni tànn nañ ko pour waxtaan ci ak population bi et j'espère que information bi dina jàll képp ku jot information bi na ko publier waat na ko partager waat ay xaritam na ko partager waat ay mbokkam ay papaam ay yaayam ay maamam ñëpp mën nañ déglu euh, li nga xamante ni moom la ñuy wax ci euh, ci moom la ñuy wax pour sensibiliser euh, nit ñi ci wàllum sécurité maanaam wàllum kaaraange ci internet parce que internet tey toll na foo xamante ni ñëpp ci dugg fi mu toll nii xale yeeg mag ñeek ndaw ñi léegi boo demee ba sa maam naan laan WhatsApp ma nga xamante ni ñëpp bokk nañ ci comprendre nga <laughs> alors donc du coup non mais euh, mais gis sa maam bu la toog yow de doo ma whatsapp mukk yow jamais nga envoyé ma message vocal. <laughs> vocal oui c'est vrai. tu vois donc je pense que kon sensibilisation sensibilisation bi ñëpp ci leen bokk tu vois et je pense que vous le faites très bien et yaakaar nañ ne bu ñu ko partagé ah, ñëpp dinañ ci mën a jot incha allah n'est-ce pas. Merci à vous, Ibrahima, de nous donner l'opportunité de ah. pouvoir faire un résumé de nos programmes parce que ñu bëri dañu am jot du lundi au podcast mhm, bi mhm. dina leen permettre ñu nekk à jour incha allah merci à toi mm, vraiment merci merci et à ñun aussi ñu leen remercier bu baax a baax ci seen disponibilité Gérard ak ñëpp ah, di leen wax incha allah rendez-vous vendredi prochain incha allah ci benn tënk ah, semaine octobre cyber 2021 incha allah merci beaucoup ciao et passez un très bon week merci beaucoup bye bye